yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf Macky Sall ak waa këram communication sonalu leen ku weddi xoolal xët mu njëkk l'Observateur mi ngi ñuy wax ne gouvernement bu Sénégal jàmm lott na war koo def dem ca ba jeex ne digge woon nañu fi ne alxames ju nekk danañu dajale journalistes yi waxtaan ak ñoom ci tolluwaayu réew mi loolee ko gëjee def kenn kañ la digge woon nañu fi ne weeru nekk alxames ja ci mujj gouvernement bi dana dem ci assemblée nationale jano ak député ya waxtaan ak ñoom ci tolluwaayu réew mi l'Observateur mi ngi ñuy wax ni ba ñu ko gëjee def kenn xamul kañ la Abdou Fouta Diakhoumpa administrateur civil doo nit formateur ci ENA mi ngi wax ci l'observateur li mu jàpp ne moo tax bu gouvernement Sénégal dëkkee diggée li mu dul def nee na état ay urgence la gën a farataal ci priorité Abdou meneen di Abdou Karim Fofana porte-parole gouvernement bi mi ngi leeral ci biir l'observateur li tax ba ndaje mi ci mel ne rencontre avec la presse gouvernement bi gëj ko def Sud Quotidien moom li mu xëy def moo di taxaw seetlu jëm ci wàllu état de droit ak bonne gouvernance na ci ba gis ci cooxe gu am ci administration mi réew mi Quotidien xëy ñëw ak ñun ci mbir mu fi yëkkati woon te muy sooxe ba léegi mu di wàllu avortement médicalisé ci Sénégal ponk la bopp bi ñu ko yëkkatee ak léegi journal bi nee nañu demul ci ngi dikkul mbaylaar dafa tagga témbe ndax nit yi diine yi ak ñi ci société civile bi ak personnel médical bi bokkuñu ci gis-gis ñu gis ci xët mu njëkk tribune boolub ceeb bu ñu lekk ba mu ne pëng mu teg ci moom yéenekaay bi dañu xamal ne guddi ñu toll lekk ak naan ak feebar faju mooy li tëj bopp sénégalais yu bari kër yu bari toggatuñu ndaxu ñàkk ak réew mu métti ndox mu sell mu ñu mën di jëfandikoo kilifa yi jiiti réew mi mënuñoo fexe ba xittali ci askan wi ci jamono jooju journal Vox Populi mi ngi xëy di laaj ci mu njëkk gerew bi nga xam ne toonekati mbali di moom la ñu nekke ndax gerew bi awul yéenekaay bi nee nañu moo di état bu Sénégal fas na yéene diggéene na dina décaissé tey ji lu toll ci juróom-ñetti bi dañu fàttali ne àjjuma fukki fan ak juróom ci weeru décembre ba léegi concessionnaire nettoiement yi ñoo ngi cib géréw ngir di ñaawlu ak mititlu li gouvernement bi jëli engagement te respecté wu leen engagement yi jëm ci xaalis bu mu leen amel moo di xaalis boobu ëpp na fukki milliards ñoom concessionnaire nettoiement nee nañu seenub xaalis la soxla Le Quotidien nee nañu li ñu soxla mooy ñu delloo seen waaji Ousmane Sonko ci liste électorale yi moo waral ñu teg pression bu rëy li ñu sàkku ci Macky Sall ak gouvernement mooy ñu def li justice bi wax maanaam ñu dellowaat Ousmane Sonko ci liste électorale lise ko nañu ba ci xibaar yi ñu mujjee jot judiciaire de l'État yóbboogul ab recours ca Cour suprême Barthélemy Diaz mi ñu woolu ca Cour suprême 22 décembre ngi ci xët mu njëkk journal bés bi le jour li ñu bari di ragal mu di Cour suprême confirmé condamnation yi mu doxe fa ñàkk mairie bu Dakar journal bi nee nañu loolee Sall moom Khalifa Sall di candidat ci présidentielle yi xëy na def waxtaan wu yaatu ak waa Enquête yéenekaay waxee ne dem ànd ji ak ñi ci nguur gi bu ko yitteeloon kon def na ko bu yàgg nee na it yi ñu tënkee woon ci assises nationales yi mu di conclusion yi doon na loo xam ne bu doon président de la république dana ci sukkandiku bu baax a baax ngir yore réew mi Anta Babacar Ngom bokk ci ñi bëgg yore réew mi mi ngi ci xët bu njëkk Walf Quotidien révolution gi nord bu Sénégal nee na projet bi mu teg waa Fuuta gëm nañu ko li neexut a gëm libération xëy na ko ci xëtamu njëkk Baye Modou Fall di Boy Djiné ak kili gëm yéenekaay bi nee nañu toj nañu réew mi laata ñu leen di jàpp Baye Modou Fall Boy Djiné Ousmane Ben Affan Ndiaye Mamadou Lamine Diallo Modou Ndiaye ak Khadim Lo bi nee nañu ca kaso ba fa la xamante fa la ñu taxawalee seenub gang ba ñu génnee ca la ñu tàmbalee doxal seeni plan guddik juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ci weeru novembre ñoo fi fetaloon benn visil ba gaañ ko bu nekk Médina bali fital yi fi tàkkoon ca Colobane cib bu